Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. bëggoon waxtaan ak suñu mbokk sénégalais yi parce que Sénégal lépp loo xam ne xew na fa rek dafa am ñoo xam ne dañuy profité ci occasion bi pour di jéem a discréditer ay nit wala ñuy jéem a diaboliser ay nit même bu nit dee sax génn àdduna dañ ciy profité pour di ci xas nit. di ko ci wax ay wax yoo xam ne wax yu ñaaw la donc waxuma nag ñi nga xamante ni euh, dañ ne ñoom seen yoon nekkul ci génn àdduna ki nga xam ne moom mooy Samba Sall waaye beneen camp bi nga xamante ni ñoom dañu contre Ousmane Sonko ak ñi ànd ak Ousmane Sonko ñu ngi jéem a euh, di accuser les partisans de Ousmane Sonko ne dañuy jubiler ci euh, le décès di juge Samba Kandji Euh, Samba Samba Sall autant pour moi mu naan Samba Kanji voilà donc dañuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp ci yàlla la ñu jóge te ci yàlla la ñuy dellu parce que yàlla wax na ko ci suuf la bind te lu mu yàgg-yàgg dinañ delluwaat ci suñ ci suuf si minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taratan uxra donc kon defe naa ne kenn ku nekk rek ak noo manti toll ak noo manti mel euh, di nga xam ne yow lu mu yàgg-yàgg di nga dee di nga génn àdduna kon defe naa ne dee ku koy yéene nit defe naa ne kon da ngaa réer parce que ku judd rek dinga nga dee voilà ñëpp dinañ dee comme ki nga xam ne moom mooy doyen des juges di Samba Sall avant Samba Sall am na ñeneen ñu fi nekkoon génn nañ àdduna ay yonant ay wàlliyu ay président ay ministre ay directeur général ay buur ñëpp nekkoon nañ fi te génn nañ àdduna waaw dafa am nag ñoo xamante ni ñoom bi doyen des juges génnee àdduna dañ ne ñoom seen yoon nekku ci parce que yàlla moo wax ne wama shahidna illa bima alimna wama kunna bil ghaybi hafizin du ñu seede li nga xamante nii duñu seede lu dul li nga xam ne si si loolu lañ xam defe naa ne nit su fekkee dafa génn àdduna te xamoo ci moom loo mën a seede da ngay màndu wala nga wax li nga xam ne moom nga xam ci moom waaye jarut ngay wax ci moom wax ju ñaaw parce que man mi wax dëgg yàlla mën naa bokk mën naa bañ a bokk ak nit gis-gis mais du ma ko yéene mu génn àdduna parce que su ma ko yéenee mu génn àdduna tamit man tôt ou tard man it dinaa génn àdduna bu ma njëkkee génn àdduna tamit mën na ci teg benn fan man ma topp ci mën na ci teg ñaari fan man ma topp ci on sait jamais yàlla rek moom mooy programme kon ñi nga xam ne dañuy profité ci occasion bi nga xam ne lépp lu am rek dinañ ci jéem a dugal waa Pastef parce que dañoo contre Pastef parce que dañoo contre Ousmane Sonko di def ay live naan waaw gars yi ñu ngi jubilé man de gisuma ko jubilé wax dëgg yàlla man daal li ma gis mooy ay nit ñoo xamante ni dañoo séddee li nga xam ne moom lañ xam ci Samba Sall. man loolu laa gis waaye gisuma kenn ku jubile am na teg am na nag ñoo xamante ni dañoo def publication ne ñoom seen yoon nekku ci te wax dëgg yàlla defe naa ne nit ku nekk am nga droit tamit nga ne man lii am na lii xew na mais sama nekku ci du ñàkk nag am ñoo xamante ni dinañ ci nekk di wax ay wax yoo xam ne wax yu ñaaw la waaye nit ku nekk loo def sa bopp nga ko def man defe naa ne nit buy dund sax man su tooñee man mën naa ko jéggal waxuma laak nag bu génnee àdduna nit matul nit dafay juum nul n'est parfait kenn matul képp koo gis mu nekk ci àdduna bi rek dina def ay erreur dina def ay njuumte waaye dafa am loo xamante ni bu xewee dañ si war a am ay jàngat tiré ci ay leçons parce que ku sañoon tamit boo génnee àdduna sa dëj dina nekk dëj boo xam ne dëj bu mag a mag lay nekk ku nekk dina la rendre hommage di wax ci yow lu rafet donte Sénégal sax léeg-léeg nit dina génn àdduna doo xam ci moom sax lu rafet nga ñëw inventé lu rafet ci moom waaye dafay fekk nit kooku noonu nekk nit koo xam ne xëy na deram yàquwul wala nit ñi merewuñ ko yenn mere yu métti yooyu noonu waaye man li ma bëgg a euh, nit ñi jàngat ko ci génn àdduna yi nga xam ne ñooy am waxuma la rek bu bu bu bu Samba Sall bi parce que avant Samba Sall ay autorité politique génn nañ fi àdduna ay autorité autorité religieuse génn nañ fi àdduna donc kenn ku nekk gis nañ témoignage yi nga xamante ni nit ñi defal nañ la ko waaye lépp lu xew même su fekkee dafa am ay nit ñoo xamante ni dañ siy wax ay wax yu ñaaw loolu pour man war nañ si mën a tiire sax leçon donte nit ku dee jarul ngay wax ci moom lu ñaaw waaye ñi nga xamante ni ñoom ñooy critiquer naan am na ñoo xam ne ñu ngi wax wax yu ñaaw ci doyen des juges Samba Sall ñooñu pour man war nañ si mën a tirer benn leçon leçon boobu mooy lan mooy àdduna lépp loo gis dafay jeex te lépp loo nekk tamit sóoraaleel na dee mën na la cee fekk. comme ni ko yàlla waxee qul innal mawta allazi tafiruna minhum fa innahu mulaqikum dee gi moom dafa nekk loo xamante ni à tout moment mën na dajeeg yow man mii fi ma toog nii mën naa jékki-jékki rek am malaise daanu dee jomb ma mën naa tëbli sama lal jékki du ma yeewu mën naa di dox ci mbedd mi oto mbëkk ma ma dee parce que ñi mu man gënuma leen naa dugg avion avion bi daanu dee mën na la fekk ci lu nekk kon soo nekkee ci àdduna ak croyance boo mënti am ci dois être humain nekk ni koo xamante ni da ngay nite tey ji da ngay gis benn tubaab boo xam ne gëmul yàlla gëmul ay yonent amul religion mais dafay wax ne moom il est humain maanaam dafa dafa dafa nite dafa am yërmande ci nit dafay def yëfu nit kon nit koo gis rek dafa war di def yëfu nit am yërmande ci nit ñi respecter nit ñi jox nit ñi cër xam ne li nga nekk lu mu yàgg-yàgg dina jeex c'est très important parce que sénégalais ba bonul sénégalais bonul yenn réaction yi bu ñu ko amee dafa am lu tax parce que imaginel nga fal ay nit nga yeewu six heures wala sept heures wala huit heures du matin dem ci bureau de vote ba rang ñëw tànn kenn jël photom xamu la yow rek yaa ko xam mais dangaa da nga kaa déglu am ci moom yaakaar ne ah président Macky Sall mii kat wax dëgg yàlla déglu naa discours am déglu naa programme am doy na ma am naa yaakaar ne jafe-jafe yi ma nekkee man su ma ko votelee jafe-jafe yooyu dina dëñ am naa yaakaar ne président yu weesu coono yu ñu doon teg moom bu ñëwee dina jeex parce que déglu naa ko am naa ci moom yaakaar je pense que il est de bonne foi nit yaakaar rek lay am nga tànn ko votel ko mu gañe léegi nag mu ñëw toog li ñu doon xeex bërki démb ak démb mu nekk wàllu impunité wàllu népotisme mal gouvernance ak yeneen ak yeneen ay corruption ak pauvreté xeex pauvreté bi jàpp ne di nga am ndox bu baax eau potable jàpp ne di nga am courant bu doy jàpp ne sa doom yi dinañ jàng ci école yu baax jàpp ne ki nga xamante ni moom jàngul ba sori su amee métier war na mën a am li mu liggéey war nañ ko mën a dugal ci benn entreprise mu liggéey mooy industrialisation jàpp ne suñu ay ressources naturelles yi nga xam ne am nañ ko war nañ ci gis suñ bopp jëriñoo ko ak yeneen ak yeneen ay yeneen yaakaar yoo xam ne yow am nga ko ci waajooju noonu nga fal ko waa ñëw def lu ko neex ñëw indi ay xaritam indi ay mbokkam indi ay goroom dugal leen ci nguur gi chaque jour nga dégg ay détournement ñu ne diw détourné na corps de contrôle yi épinglé nañ ko procureur jox nañ ko ko ma ci tiroir ba procureur du def dara xam nga lan lay xaar président jox ko ndigal pour mu def dara donte président moom mooy patron parce que ci parquet bi la bokk parquet bi mu ngi dépendre ci ministère euh, de la justice te ministre de la justice président moom moo ko nommé c'est le président qui nomme à tous les postes civils et militaires moom moo yor ay décret te procureur boobu donte président mooy patron am mais waroon na di def liggéey nekk l'avocat du peuple di def liggéeyam bu jaree président bi sanctionné sanctionné ko dàq ko sax ñu xam ne kat kii def doon def liggéeyam ba président dàq na ko nga xamante ni nit ñi dañ koy bëgg kooku tey bu demoon ba génn àdduna nit ñi danañ danañ sedd ci moom sedd yoo xam ne seede yu rafet la parce que gis nañ mu def acte boo xam ne acte bu foor la boo xam ne peuple bi moo ko jaral moom ñu dàq ko mu ñàkk postam léegi kon impunité bi ma leen di wax mu ngi foofu léegi nag procureur boobu ak waa parquet bi yëpp doyen des juges ak juge yi fa nekk yëpp juge d'instruction yi ñoom ñoo nekk ci parquet bi ak euh, procureur donc am na euh, premier cabinet ba dixième cabinet léegi ñu ci bëri bu ñu leen falee tey gars yi dañuy am benn ñaaw njortu ci li nga xamante ni moom moo wees ca Senghor ci Abdou Diouf ci Abdoulaye Wade ne ñooñ kat dañ leen fay teg pour président bi su amee ñoo xam ne daf leen a bëgg a liquider ci ñooñu lay jaar maanaam ku nanguwul ñu instrumentaliser la yow doo am place foofu noonu ci parquet bi soit dañ lay affecté dans les régions wala ñu yóbbu la ci yenn ministères yi nga xam ne yow doo doo doo mën a yóbbu nit kaso daal donc kon jàngat boobu noonu moom la nit ñi war a am ci réaction yenn sénégalais yi parce que dafa métti tey. sa réew justice bi war la àtte war la jaaral la ci yoon war la yemale ak ñëpp mais gis nañ ko ba tàyyi chaque jour ñi nekk sax ci justice bi muy les magistrats UMS Union des magistrats du Sénégal ñoom sax dañuy kaas ne ñoom dañoo soxla indépendance kon ñëpp xam nañ ne la justice sénégalaise n'est pas indépendante te loolu président bi mu leen doon wax ci début ba na nit moo amoon yaakaar. ba fal ko nit ki bi mu koy fal loolu tamit bokk na ci pour justice bu équitable boo xamante ni bu jaar yoon lay nekk man su ma joteeg nit mu ëpp ma doole tey su ma demee ci justice su fekkee nit ki moo ma tooñ tey donte moo ma ëpp xaalis moo ma ëpp daraja mais justice sanctionné ko condamné ko jox ma dëgg loolu moom la ñuy xaar ci justice sénégalaise gis nga loolu bu amut dafa am une haine viscérale boo xamante ni dafay jógee ko ci peuple bi si sénégalais lambda bi dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy les élites politiques yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite loolu moom mooy indi yenn frustration yi ba nit ki sax bu génnee àdduna yow doo am sax benn tolérance pour seddal ko lu rafet walla pour wane ne daal man génn àdduna gi naqari na ma donte man meluma noonu man wax dëgg yàlla personnellement yéenewuma kenn dee su ma sañoon Samba Sall def fii nekk parce que Ousmane Sonko man moom laa àndal ñu bëri nag. ñu ngi jàpp ne Samba Sall dafa naroon na sànq Ousmane Sonko waaye gis nga nit su fekkee da nga da nga da nga bëgg def dara mu sotti dafay fekk mu neex yàlla xëy na mën naa am loolu mënoon naroon na am mënoon nañ ko yóbbu kaso xëy na loolu lañ prévoir prévoiroon ñoom mais gis nga peuple bi génn na ne su ngeen ko tëjee ci kaso bi ñu taal dëkk bi dëkk bi yàqu sëriñ si génn bi sëriñ si génne lañ lañu wax dañoo ñaan ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi ne ko kat yow jàmmi réew mi si sa loxo la nekk su fekkee dossier bii dafa nar a taal réew mi nañ arrêté dossier bi début bi dëgër na bopp mais bi mu demee ba xam ne li ko sëriñ si wax dëgg la te luy tooy après ci moom lay jógee parce que mënoon nañ ko fekk ci palais ba jëlee ko fa lu nekk mënoon na ci am te ay nit tamit nañoo gën a dee maanaam lim bi yokk quatorze personnes ñoo dee mais su continué woon mën nañ dem ba am ay quarante morts ñaan ñaanuñu ko ñaanuñu ko yàlla mais mujj gi président bi mu xamee loolu dellu na ginnaaw ñu jëlaat lépp teg ci suuf ñi doon wax ne dossier bi dossier politique la kon juumuñ ñi nga xamante ni génn nañ tamit lu mat 80 pour cent des sénégalais génn di jàppale Ousmane Sonko ci liquidation bu ñu ko naroon na liquider ñooñu tamit ci dëgg lañu nekk parce que dañ kaa gis ñu def ko ay yeneen nit gis nañ ne tamit Macky Sall il a ses ci parquet ba ses juges d'instruction yoo xam ne tey ñoom boo joteeg Macky Sall wala Macky Sall bëgg la tëjlu ñoom du ñu xool sax ay. ndax yow war euh, yaa tooñ ak tooñoo ñoom da ngay ñëw rek ñu ne la voilà dossier bi dafay am instruction léegi dañ lay yóbbu kaso nga dem toog te kooku du daw du génn réew mi du dem fenn Sénégal rek la am du daw du dem fenn te heure boo ko soxlaa dañ ko gis j'espère que nga bàyyi ko mu dem këram toog loolu moom moo gën waaye comme affaire yi politique la te président bi dafay jël doole ji nga xam ne moom la ko askan wi jox di ko xeexee ak ñi nga xam ne dafa jàpp ne ay noonam lañ te duñ ay noonam parce que dañoo bokk bëgg-bëgg mooy ne siège bi mu toog ñooñu dañoo bëgg toog foofu te dañ see am droit comme moom ni mu ci amee droit parce que Ablaye Wade moo toogoon ci siège boobu moom mu lorñee chaise u Ablaye Wade bi ne daf kaa bëgg mu créé par thème dem à la conquête du pouvoir sénégalais yi tànn ko ne ko remplacer Ablaye Wade parce que sénégalais yi ñooy décider. mu dem toog léegi nag moom bi mu toogee ñi nga xam ne ñoom ñooy opposant yam mu ne leen yéen sama ay noon ngeen man maa yore doole ji su ma neexee instrumentaliser la justice ku ma ku ma fi fontoo ma jaay la doole dem tëj la par force te doo ci man dara avec la complicité de ces juges mooy juges yi ko nangu les juges d'instruction magistrat du siège yi nag des fois man nañ see bokk parce que ñoom dañoo war a am indépendance parce que ñoom dépendruñ ci parquet bi ñoom ay magistrat du siège lañ dañoo dañ dañoo war a àtte jaarale ko ci yoon kenn waru leen mën a instrumentaliser waaye ñoom it léeg-léeg dañ ciy bokk parce que gis nañ dossier Khalifa Sall bi euh, la Lamotte moom moo tëj Khalifa Sall te warul tëj Khalifa Sall parce que Khalifa Sall deful dara Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana li ma leen waxoon ci début bi wa maa shahidnaa illaa bi man li ma xam ci nit moom laay seede moom moo jàpp Khalifa Sall moom tëj ko yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaare aljana yàlla na ko yàlla jéggal ay bàkkaaram nag fii nii ku fi nekk rek def nga erreur man mii damay def ay erreur damay juum sàmba Sall nit la dafay def ay erreur day juum keneen ak keneen day def erreur day juum ku dul juum amut waaye nag il faut pas que ñiy génn di dal ci ay nit ñi nga xamante ni dañoo am frustration dañoo mer parce que dañoo teg ay nit injustice yu métti jàpp ay nit tëj leen kaso te defuñ dara ba pare ñoom ñiy tëj ñooñu ñu ngi dem tëdd seen kër kër gu neex gu rafet gu yànj taal seen climatiseur nekk ak seen ay soxna nekk ak seen ay njaboot nekk ci jàmm nekk ci condition yi bien Hadj Abdallah mii moom àndul ak Macky Sall Macky Sall kole na ko motif bëgg na ko jaay doole ne ko man maay président de la république boole na ko ak procureur am wala boole na ko ak doyen des juges am wala boole na ko ak ñenn ci juge d'instruction yi ne ko daal booy bi il faut ngeen liquider ko wala waa ji nii semon mon adversaire def ma sonal fexe leen ngeen liquider ko léegi nag ñoom au lieu ñu am ngor am éthique ak déontologie bi nga xam ne moom lañu leen tàggatee wan leen na leen carrément bala ngeen tëj nit. na ko jar na nit ki def lu tax ñu war ko tëj ci kaso bi loolu dañ leen jàngal mais kenn jàngalu leen neleen bu ngeen demee su fekkee Macky Sall dafa am ak nit problème ngeen jàpp ko tëj ko kaso mën naa am Macky Sall dafay jël xaalis ci caisse noire bi di leen ci neexal bon mën naa am wóoruma nag mais ni mu demee soo ko gisee da ngay xam ne ñii euh, condition yu baax lañ nekk train de vie bu ñuy mëne du seen salaire moo leen koy may bien yu ñuy am ci ay suuf ah ci ay kër oto yi ñuy dawal xaalis bu ñuy am seen njaboot ni ñuy dundee da lay wër na su fekkoon ci seen salaire rek lañu yem ak indemnité yu ñu am xëy na loolu duñ ko am parce que am na yeneen magistrat yoo xamante ni ñoom bokkuñ parquet mais ñoom ak magistrat parquet yi duñ benn duñ benn ñu dañuy am dund boo xamante ni bu tànnee la rek voilà yem si seen salaire di àtte sénégalais lambda yi nga xamante ni ñoom jotewuñu ak Macky dara mais ñooñu dañ leen di àtte ci yoon waaye nag képp koo xam ne tànn nañ la yóbbu la ca parquet ba bu Dakar kooku nag moom dafay nekk koo xamante ni moom il est prêt pour di def ay sale boulot di neexal Macky Sall parce que Macky bi mu ñëwee fekk na fa Ousmane Diagne comme procureur de la République mais daf ko faa jëlee parce que xëy na Ousmane Diagne li mu bëgg moom du ko ko mën a defal mu dem jëli son homme de confiance ak koo xam ne mën na ko manipuler muy Bassirou Gueye Bassirou Gueye ñoo remplacé Ousmane Diagne en 2013 Mao Semou Diouf moo fa nekkoon comme doyen des juges 2015 mu dem sàmba Sall ñëw Samba Sall nag gis nañ jaar-jaaram ak ñu bëri ay ñoom Guy Marius Sagna gis nañ jaar-jaaram ak Khalifa Sall waxoon naa ko sànq Aïda njong Karim Wade ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen gis ngeen dossier Aïda njong bi début bi nu mu demee woon ñu jël ko yóbbu ko kaso procureur génn def. Euh, conférence de presse taxe fi Aïda Ndiongue de tous les noms d'oiseaux jiñ ko 47 milliards tëj ko kaso moom yàgg ñu génnee ko léegi génnaat na moom Aïda Ndiongue def conférence de presse ne dafay dem jàppale ji rakkam Macky Sall li fi amoon yàlla moo ko dogal xam nga ñii kon te ñii fontoo gis nga yii moo tax nit ñi di dañ dañoo yëpp léegi xaalis bu ñu ko jiiñoon na xaalis bii xaalisu Sénégal la daf ko sàcc ba mu jaraloon procureur mu génn di def conférence de presse mais xaalis boobu anamu léegi moom il faut que moom mu dem rejoindre Macky Sall pour mu mën a am jàmm moom lépp lu ñu ko doon toppee rek kenn dootu ko ci topp te lu ñu ko doon topp ci produit phytosanitaire yu plan jaxaay yi ak moto pomp yeeg yooyu noonu mais loolu xaalisu sénégalais yi la c'est l'argent du contribuable léegi ci moment boobu noonu. doyen des juges bi génn àdduna Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm te àtte ko ci yërmandeem encore une fois yéenewu ma ko dara lu bon su ma sañoon def fii toog doyen des juges boobu noonu tey su fekkoon na ci moment boobu Aïda Ndiongue nangoon na nangu woon na dem transhumé ci Macky Sall ku noon kenn du ko tëj kaso ku noonu procureur du génn sax di def ay conférence de presse kon yabaate gi ñuy gi ñu yab ak sagar yi ñu jàppee respecté wuñ ñu jàppee ñu ay mouchoir Kleenex yoo xam dañuy ñandu sànni ci poubelle bi te ñun ñoo leen fal loolu mooy indi fristration bi ba tax peuple bi dañuy mer am benn haine ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiite mais nekkul ne peuple bi dañoo bon le sénégalais n'est pas violent le sénégalais n'est pas méchant sénégalais dafa am yërmande lan moo tax ñu ñuy oowee euh, pays de la Teranga hospitalité boobu noonu dafa nekk ci ñun nekkoon ci suñu ay maam ñu inculque ko mu nekk suñu jikko ñun jàmm rek bëgg nekk dëkk bu baax kër goo dugg añ naan ataaya waxtaan bu la neexee sax nga fanaan fa bëri na ñun ñëpp jaar nañ ci lool est-ce que di nga ko gis Europe est-ce que loolu di nga ko gis Amérique parce que loolu du seen culture kon peuple boobu mënuñoo wax ne dañoo bon waaye nag gis nga nit boo koy teg naqar di ko teg métit bu yàggee nag wax dëgg yàlla mën ngaa génn àdduna sax mu yéene la ko parce que dafay foog ne yow boo génnee àdduna moom dina am jàmm moom loolu lay foog imagine leen tey bu nga boo nekkoon ak benn dictateur dans un pays boo xam ne dictature moo fa am dictature bu métti wala nga nekk ci dëkk boo xamante ni buur bi moo fa nekk soxor mais buur bi bu génnee àdduna mu wóor peuple ba ne ñoom après mën nañoo am indépendance mën nañoo firi mais ñoom dañuy kontaan donte dee kenn du ko yéene kenn kenn du yéene kenn dee. foog si côté boobu lañu war a jàngatee te bàyyi côté bu négatif bi ay naan ah lu tax nit ñi di yéene nit ñi dee mais lu am lépp lu am dafa am loo xamante ni moom moo ko sabab lépp lu am dafa am lu ko sabab di Lamine ñes yal na ko yàlla yërëm xare ko aljina mais bi mu génnee àdduna gis ngeen dëjëm bi nu mu mel gis ngeen seedee mi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni tey bi ñu génnee àdduna gis nañ seen dëj gis nañ seede yu leen nit ñi seedeel parce que nit ñi loolu lañ xam ci ñoom. parce que Sidi il était toujours di côté du peuple dafay ànd ak benn waay gunge ko ba waaja falu pale mu wëññeeku delluwaat ci peuple bi Sidi Lamine loolu la wax nee na man ku bëgg réew mi dinaa ànd ak yow gunge la ba nga dugg palais ma génn nag wëññeekuwaat damaat ci peuple bi nag rangé wu seen seen côté parce que peuple bi ñoom ñoo fal waa jooju noonu te peuple bi dafa am lu tax ñu fal waa jooju noonu dafa am lu ñuy xaar ci waa jooju noonu. mais xaaruñu waa ji pour mu ñëw ne dafay réduire l'opposition à sa plus simple expression waa dafa am ay attentes dafa am yu koy xaar dafa am ay priorité waxoon naa ko sànq priorité yi bokk na ci Sénégal njàng mi baaxul ay abri provisoire ba léegi mu ngi am da nga koy gis chaque jour ngeen gis ko ñu publier ko ci internet bi mais jawbe bi nga xamante ni bokkoon nañ ci manifestation yi ba dam di songu seen euh, caserne bi camp wu gendarmerie mais jawbe boobu noonu seen liise bi abri provisoire la ay sàkket la bu ñu jàngee ba pare mbaam yi ñoo fay nekk di taxawaalu fa la ñuy nelawee mbaam yi léegi am na ku may oo quoi waaw ah, mais ngeen baal ma jawbe ak tur bi mu am ak luuma bi nga xamante ni euh, mu ngi koy def foog naa chaque mercredi la si je ne me trompe mu nekk un marché hebdomadaire international nga xamante ni Guinée ñaari Guinée Guinée Bissau Guinée Conakry Mali Mauritanie ñëpp a fay daje la ñaata moo fay dugg ci xaalis mënuñoo am ñoom lycée digne de ce nom tabaxal leen lycée mais mel ni ay. rab ñoo dëkk jawbe bañ leen di tabaxal ay sàkket pour ñu fay jàngee te chaque jour nga dégg ñu ne am na benn ministre bu détourné ay milliards et milliards wala benn directeur général te kenn du ko def dara kooku dañ koy protéger parce que Macky Sall la àndal wax naa leen léegi Aïda Ndiongue dem na rejoindre Macky Sall parce que dafa bëgg am jàmm dafa bëgg jot ci xaalis bi nga xam ne moom lañ confisqué woon ci moom te xaalis boobu xaalis sénégalais yi te Aïda Ndiongue amul fan lay jëlee 47 milliards institutrice institutrice mooy jàngalekat école primaire mais kooku fan lay jëlee 1 milliard sax bay am 47 milliards soo waxee ñu ne dafa gagné ay marché mais marché yooyu c'est des marchés gré à gré te xam nañ nu muy demee ay ay ay ay ay ay facturation yoo xamante nii c'est des fausses facturations ay surfacturation ñoom ñu ci bëri loolu moo leen di may xaalis ministre boo déggul sax ñu ne détourné na sax milliardaire la parce que marché bu mu am bu ko joxee nit nitam la koy jox même su fekkee dañ ne marché bi sax du gré à gré marché bi marché bu jaar yoon la dafa am appel d'offre rek yooyu ki mu koy jox copain am lay doon te daf koy wax na ko bala ma la kaa jox ñaata laa ñaata laa ciy am kooku séddoog moom affaire bi pour mën a gagner marché bi même bu fekkee tudduñ ko sax ci détournement il devient un milliardaire ndox Sénégal mënuñ kaa am ndox capital bi nga xam ne moom mooy euh, Dakar pour nit ñi am eau potable wala ñu mën a ubbi na bëccëg am ndox c'est tout un problème courant am na ay dëkk àll yoo xamante ni amuñ ko bëri na te pourtant ñëpp waroon nañoo mën a am courant Sénégal dëkk bu ndaw la su fekkoon président bi jublu na. ci priorité yi lu tax ñu fal ko maanaam ñëw di liggéey village bu nekk mën nga am courant bu doy te courant sax du coupé parce que on a tout qu'il faut pour am courant énergie solaire mu ngi fi mën nañ ci investir ñu ngi am jant ci at bi yëpp naaj bi day tàng jër barage yu nekk foofu noonu ay barrage de Diama de Manantali fu nekk mën nañ fa jëlee ndox mënoon nañ fa jëlee courant kon mais liggéey yuñ ana hôpitaux yi am nañ ay hôpitaux yu baax ñoom ñi ñu jiite ku ci feebar yow da ngay dem France dem faju ji wala nga dem États-Unis ñu ci ëpp sax France la ñuy dem am na ñoo xam ne Maroc la ñuy dem ak Tunisie te étudiants marocains yi ñu ngi leen di former à Dakar université bu Dakar foofu la ñuy jàngee médecine seen ay professeur sax dañuy feebar dem fa tombeek ci benn médecin boo xam ne c'est étudiant la woon mais loolu c'est une honte c'est am na ñoo xam ne nee nañ dañuy sax ruus am na ku mu daloon ci professeur yi dafa dem Maroc di faju nekkee médecin bi ko doon jël en charge kooku c'est son ancien étudiant mais xam nga loolu gàcc la te loolu ñan ña ñan ñoo ñu ko yóbbee mooy nguur gu bon gu mel ni Macky sàll parce que nañu waxante dëgg Macky Sall dafa am lu ko waroon bi mu ñëwee te loolu dafa ko loolu moo tax sénégalais yi mere ko ba am en ci ñi nga xam ne ñoom la àndal ba bu ci nit dee sax dangay gis ñoo xamante ni dañ ciy wax wax ju ñaaw te duñ ko tey mais nekkul ne dañoo soxor bu leen jàpp ne nit ñi dañoo soxor parce que dañoo téye nit ñi ñoom bande d'association de malfaiteurs boobu noonu di torturer ay nit di leen xañ jàmm ku ànd ak ñoom yow yaay am jàmm ku àndut ak ñoom doo am jàmm soo jotee wut ak ñoom dara dañ lay jàpp jaay la doole tëj la ci kaso bi par force ba pare dem seen kër tëdd di nelaw Macky Sall di tëdd di nelaw di tukki di dem fu ko neex moo ay njabootam Amadou Sall am jàmm Ibrahima am jàmm Khadous am jàmm Marème Faye ak ay ay ay ay magam ñoom ñoom ñoom Mansour Faye Adama Faye ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da ngay am jàmm. ministre mi ñi mu àndal seen njaboot ñëpp ay am jàmm directeur généraux yi ñu bokk ci parti Benno Bokk Yaakaar bi ñu bokk ci parti APR bi wala coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp. dañuy am jàmm parce que ils son avec Macky Sall léegi nag ñoom ñoo diviser Sénégalais ñoom ñoo jël Sénégal xaaj ko jël jël ay nit ne leen yéen àndul leen ak ñun bokk leen ak ñun gis-gis dañu leen di marginaliser dañu leen di dañu leen di persécuté dañuy def répression ci seen kaw chaque jour léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Macky Sall ci parti bi ak ñi nga xam ne nangu nañoo transhumé jaay seen ngor ak ñi nga xam ne ñu ngi ci administration bi comme ay juge comme ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nangu nañ ko defal sale boulot ñooñu ñoom ñooy am jàmm ñooñu léegi nag ngeen bëgg na dëkk boobu nit ñi seen xol yi dina sedd lu tax xol yi di sedd xol yi dafay tàng parce que équité moo fa amut ak égalité tey jii Macky Sall li ko waroon tey mooy cohésion national la waroon a oote bi muy soog a ñëw parce que dafa am ay tension yu amoon avant moom muy falo dont il est victime tension yi kañ la commencé depuis Senghor événement euh, mi 1962 moom Mamadou Dia mu jiiñ fi Mamadou Dia coup d'état avec la complicité des juges ci jamono jooju ñu jàpp ko tëj ko kaso kon loolu yàgg na fi ay juges yoo xamante ni dañuy nekk ci soldu président bi lu président bi bëgg loolu la ñuy def parce que lan moo koy waral mooy xaalis teraanga président bi day yore caisse noire boo xamante ni mën na ko yore di leen ci dundal ñoom di leen ci jox pour ñu leen di defal sale boulot léegi su fekkee ne askan wi ñu ngi gis loolu yëpp mais da ngeen bëgg askan wi ñoom nekk ay hypocrite di wane ne bëgg nañu nit te bëgguñ ko lu tax loolu mais kenn ku nekk am nga droit nit génn àdduna nga ne man kii xaw ma ci moom lu ma koy seedeel xawma ci moom lu rafet. mën naa am xëy na am na ñoo xam ne xamal nañ ko lu rafet mais man de personnellement wax dëgg yàlla encore une fois je le répète yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana si sama xol bii nii laa ko tubbee billaahi wallaahi watallaahi Demba Kandji bépp bàkk astafurlah <laughs> Samba Sall bépp bàkkaar bu mas a def ci kaw suuf comme ni koy man ñun euh, ñëpp di defee man ni ma koy defee ni koy sama morom di defee ak ñëpp yal na ko yàlla xar aljana yal na ko yàlla atte ci yërmandeem ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu laa koy yéene waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi des nañ am jàngat nañ ñaan yàlla def loo xamante ni tey bu ëllëgee ñoom bu ñu génnee àdduna sénégalais yu bëri duñ am taxawaay bu ñaaw bii nii ñu am tey ci juge Samba Sall parce que des fois nit da ngay def loo xam ne yow doo ko sax tey parce que da ngay mer da mer mais ñun ñu nga xamante ni ñoom ñoo ñuy toroxal di ñuy torturer coloniser ñu Macky Sall ak ñu mu àndal ñooñu ils ne font même pas cinq cent mille personnes laa la wax matuñ cinq cent mille personnes. ñoo nekk à la tête du pouvoir au sommet de l'État jàpp sénégal yi comme ay jaam arrogant fu ñu waxee saaga nañ sénégalais yi fu ñu waxee ñu ngi fëgg ay table force restera à la loi bi jaay nit ñi doole wane na ñoom ñoo am doole kan moo am doole ku dul yàlla yàlla rek am doole kenn amul doole ku dul yàlla yàlla rek moom moo am doole moom mooy borom xuwa mooy borom doole ci kon képp ku fi nekk nekk juge foog na da am doole ba ku la neex nga jàpp ko tëj ko ci kaso gi lu mu yàgg-yàgg yow yàlla dina la o convoqué la moom tëj la ci kaso goo xamante ni kaso boobu mooy gën a xat kaso gi nga doon tëj nit ñi te boobu c'est éternel ba pare moom dina la àtte moom ñu ngi ñaan nag bu lay àtte mu àtte ci yërmandeem waaye nit soo nekkee ci àdduna bépp jëf joo fi jëf su fekkee gëm nga bépp jëf goo boo fi jëf boo demee di ko layoo wa kullu insaanin alzamnaahu taayirahu fi unuqihi wa nuxrija lahum yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansuura képp koo xam ne danga nekk ci àdduna bi di jëf moo xam lu rafet la moo xam lu ñaaw la gis nga boo génnee àdduna dañ la koy takkal mu nekk maxtuum nii ci benn téere comme yi murid di takk maxtuum yooyu dafay ubbeeku automatiquement yalqaahu mansuura iqra kitaabak ñu wax la nag na la eh jàngal sa téere bi nga jàng su fekkee lu baax nga daan def ah nga am yaakaar ne comme man lu baax laa doon def te hal jazaawul ihsaan ilal ihsaan xëy na dinaa texe su fekkee lu bon nga doon def nag yàlla moom mën na laa àtte ci yërmandeem parce que nit tey mën na dund di def lu bon di def lu bon ba mu yàgg benn jour mu def lu baax loo xam ne yàlla sax da ko ci yërëm pour dugal ko aljana loolu c'est possible mën na nekk waaye daal jàngat daal war na am ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ak ngi nekk ci administration bi Macky Sall jarul nit di jàpp ay nit di tëj ci kaso te defuñ dara Macky Sall jaru ko parce que boo génnee àdduna Macky Sall du la fa fekk sa ay jëf moo la fay fekk te jëf jooju jëf ju rafet la war a nekk boo nekkee ci administration bi nga nekk magistrat amal sa fulla am sa fayda Macky Sall lu mu yàgg-yàgg dafay dem bàyyi la fi yow fonctionnaire de l'état nga da ngay dem ba retraité su fekkee gudd nga fan bi muy ñëw fi la la fekk te buy dem fi la lay bàyyi xaalis bi muy jël di la ko corrompre di jël ay caisse noire sénégalais yi di la si corrompre di la jox ay kër di la jox ay oto yu rafet di la jox ay compte bancaire kooku booy dund nga koy jëriñoo mais boo dee doo ko mën a jëriñoo te dee mën na ñëw à tout moment day ñëw te loolu mu la doon jox danga ko fi bàyyi te képp koo xam ne da ngay dundal sa njaboot. war nga jox sa njaboot lu lew lu lew c'est très important nit da ngay am ful nit kenn waru kaa jënd nit nekkul xar nekkul nag bañ koy jënd man ku ma nar a jënd man na la du sa bétail man du ma xar du ma nag boo bëggee jënd da ngay dem ca daral ba nga dem jënd ji xar wala nga dem jënd nag mais man je pas une personne boo xam ne damay dañuy ñëw di ma jënd nga am sa fulla lu la ci manti fekk baax na mais Guy Marius Sagna mii c'est une référence pour la jeunesse sénégalaise Guy Marius Sagna ci administration bi la nekk ministère de la santé la nekk comme assistant sociale mais xoolal lu muy dund jafe-jafe yu muy dund parce que il n'est pas avec Macky Sall àndul ak Macky Sall gis-gis mais ñi ànd ak Macky ña am jàmm ñoom toog ci seen bureau yu neex ya climatisé yore seen commande oto dañuy génn rek cuuc oto bi tàkk ubbeeku kon ñu dugg toog ca ginnaaw chauffeur ba di leen dawalal yore seen passeport diplomatique fu ñu bëgg a dem ci àdduna bi dem fa am seen compte bancaire yu fees del parce que Macky Sall la àndal am jàmm jàmm rek la ñuy dégg mais ñooñu nag malheureusement pour ñoom minorité lañ 17 million sénégalais lañ jiite léegi statistiques yu mujj yi foog naa nous sommes 17 million donc ñi ci des. nga xam ne ñoom ci galère la ñuy nekk dañ leen appauvrir xiifal leen ñu mar amuñ ndox mu sell muñ naan amuñ lekk gu baax gu ñu lekk seen doom yi mënuñoo jàng jàng bu baax mënuñoo feebar ba faju mënuñoo daw ci tali yu baax mënuñoo am courant bu doy bu ñu tëddee ventilateur bi ñuy am sax pour mu ëpp leen courant day coupé ñu nekk ci tàngaay bi pendant ce temps ñi la ñoom ñu ngi seen ay groupe euh, électrogène ñoom lan lañ def ba ba ba war a mën a am privilège yooyu ak avantage yooyu noonu ñoom ñooy ñan parce que politique la ñuy def façon bu ñu koy defee dafa salte c'est sale loolu rek moo tax sénégalais yi mer ñi nga xam ne nag ñoom ñoo contre Ousmane Sonko Pastef di génn def ay live naan waaw man masumaa gis ku génn àdduna ay nit di ci kontaan affaire yooyu fii kenn kontaanu fi Ousmane Sonko si boppam nekkuma ci xolam de mais je suis et certain que ne gëm na yàlla gëm yàlla goo xamante ni yéenewul Samba Sall génn àdduna moom bu sañoon Samba Sall daf fiy nekk dossier bi leer nañ man mii tey lu nit ñi doon tiit ci Samba Sall man tiituma ko ci sàmba Sall parce que Samba Sall nit la mu ngi nii génn na àdduna Macky Sall mën na génn àdduna yéenewuñ ko ko ñeneen ñiy jaay doole foofu noonu Sénégal foog ne ñoom ñoo am doole mais tey mën nañoo génn àdduna man mii nga xam ne aw ma doole baa doole laa tekkiwu ma dara mën naa génn àdduna léegi nii. léegi nag Samba Sall boobu nit ñi doon tiit ne dafa bëgg a sànq Ousmane Sonko man masumaa tiit na man na sànk Ousmane Sonko parce que damaa xam nga fan laa ko teg dama jàpp ne moom du yàlla du yonant yonant sax nit la du yàlla ko du moom mooy dogal. jàpp naa ne Macky Sall ci boppam mi nga xamante ni moom mooy le président de tous les sénégalais nga xam ne mooy jàpp nit ñi di leen jaay doole di toroxal nit ñi man dama je suis sûr et certain ku ma tegal kaamil ma rëkk ci ne manul ci Ousmane Sonko dara mënu ko ci Ousmane Sonko dara mënu ko ci Ousmane Sonko dama ko gëm nit ki su la tëkkoo sax yow waroo tiit parce que du dara doomi aadama la comme yow mënul ci yow dara man kenn mënul ci man dara man man tey su ma nit su su nit defoon ay pexe sax ba mu sotti xam nga lan laay jàpp damay jàpp ne yàlla la moo tax tey ñun suñ sañoon Samba Sall dafay dund parce que gëm naa ne Samba Sall mënul ci Ousmane Sonko dara man loolu laa gëmoon conviction boobu laa am moo tax yéenewu ko mu génn àdduna man mënuma yéene sàmba Sall mu génn àdduna xëy na ñeneen ñi nga xamante ni xaw nañ ci kontaan wala di wax ne sama yoon nekku ci di saaga ak yooyu mais frustration moo leen jàpp mer parce que des fois nit daf lay teg yenn métit yoo xamante ni yow day génn àdduna da ngay continuer sax di ko mere na ma yàlla baal waaye nag nit ña bokkuñu yem nañ comprendre nit ñi nit ñi bokkuñu yem man li ma mën a muñ ak li ma mën a toloore xëñ na am na keneen koo xam ne amul tolérance boobu noonu tey jii ñi nga xam ne ñoom ñooy dal ci kaw euh, gars yi naan dañoo kontaan ci demu Samba Sall bi mais ñooñu c'est des hypocrites nañ bàyyi suñu hypocrisie bu ñu nekkee ñoom si seen bopp am na si ñoo xam ne bu ñu sañoon tey Ousmane Sonko ma ngi kaso ba billaahi wallaahi watalaay lu may wax lu fu leer laa ko teg gis nga ñuy génn di dal ci kaw gaa yi nga xam ne nee nañ dañoo kontaan ci demu Samba Sall ñoom loolu lañu wax di profité ci occasion bi pour jéem a discréditer waa Pastef yeeg yooyu nekk comme kii moo yoroon dossier Ousmane Sonko donc génn àdduna luñ bëgg a wax mooy waa Pastef yi ñoom ñoo ci kontaan di jubilé te loolu du dëgg ñooñu ñooy hypocrite yu mag yi ñoom parce que ñoom. bu ñu sañoon tey Samba Sall day jël Ousmane Sonko yóbbu ko kaso mais peuple bi moo génn na non moo tax après bi peuple bi génnee ñoom ñu génn nag bëgg jël Ousmane Sonko wékk ko affaire bi naan ay Ousmane Sonko moom moo oo xale yi appel à l'insurrection la def te fekk c'est foo du dëgg peuple bi dañ leen a teg loo xam ne attanuñ ko ñu gis benn doomi aadama boo xam dañoo am ci moom yaakaar mu am programme bu baax ñu bëgg ko sànq arbitrairement teguñ ko ci yoon lu dul ci ay fen ay sos ak yàq der ñu génn ne ça suffit non freiné Macky Sall dal ci kawam ba ay nit génn ci àdduna loolu nag ñu ngi koy regretté bu ñu sañoon du am mais ki ko indi mooy Macky Sall parce que su bàyyi woon Ousmane Sonko ci jàmmam lii yëpp du am bu considéré woon Ousmane Sonko comme un adversaire politique lii yëpp du am mais moom mooy def ay pexe pour di teg ay adversaire politique daf ko Khalifa Sall daf ko Karim wàdd daf ko ñeneen jaarale ko ci parrainage éliminer leen di jàpp ay activistes yoo xam ne defuñ ko dara di leen tëj muy Guy Marius Sagna ak ñoom Assane Diouf ak ñeneen ak ñeneen loolu moo tax peuple bi mer am ñoo xam